asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi si aljuma 15 octobre 2021 Euh, ñu ñëwaat ak yéen ci yëglikaay li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 15 octobre 2021 dañuy wax ci yëglikaay sunu lamb leen kay dooreeti yëglikaay ba tey xëtamu njëkk maanaam la ca xëy fës. bokk na ci Modou duloo ak Ama Baldé seenum combat nag daa mel ni fi mu nekk nii leer na nañ léegi le 13 mars 2022 lañ ko fixé mu mel ni ki nag CNC bi nga xam ne moom moo jiite lamb ji daal validé na mbir moom a nga xam ne ab requête la boo xam ne Luc Nicolaï moo leen ko joxoon daal nangul nañ ko la mu bëggoon ci ñoom mu mel ni ki nag Bira Sène ma jiite làmb ji xëy na wax ca combat ba ne na boobu combat li am ba des fi mu nekk nii daal vidé ko maanaam jële ko fi mu jeex la ñu war a def na seetum pexe ngir combat bi jóge fi maanaam kon jàppal le 13 mars daal 2022 la ñu fixé boobu le muy Ama ak mooduloo beneen combat boo xam ne nii moom mu ngi waaj a ñëw diggante général Malika ak ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moom moo di Fils de Balla yëglikaay xëy na tey wan ñu ki nga xam ne nii moom moo di général Malika diñu wax ne nag ña nga xam ne jot na leen fee daan moo xam ka nga xam ne ni moo di tey seen ngin gi neew la ba ci mbaytin numéro de yëglikaay bi ñëw na ci moom am na koo xam ne mu ngi tey wax ñu naan ko Ahmed Konaté moom itam di ab technicien bu yëngutu ci wàllum làmb ne na boo bëggee dégg-dëgg général Malika moom mooy favori ci kanamu Fils de la lool moom gis-gisam la moo tax tey mu xëy ñëw di nu wax lu mel ni noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey ñëw di ñu ko wax beneen combat boo xam ne tamit bu ñëwee maanaam yëglikaay bi mu ngi nuy xëy di ñu xamal daal xamal ñu ne daal maanaam léegi leer na naññ régularisé nañ ko démb ca seen ba muy diggante Balla gay numéro 2 ak Bombardier yëglikaay ba nag moo nu xëy daal xamal ñu boobu lépp combat yeneen ñoo xam ne nii wala ñeneen ñaar ñoo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ñoom nag donte ay mbër ay mbër lañu waaye bëre moom du ko seq muy buy bu laal Lansar ak rakk ja As Gaawaan wala boog frère am yëglikaay ba ne na ñaari frère benn écrit ñaari mbër yi daal ñooy ay frère lañu ba pare ñoo bokkaat écrit lamsaar muy as gaawaan ak ka nga xam ne moo di bul laal kenn koo xam ne ni moom maanaam laal ko ci lamb ku koy def nang ko seet seetaat ko muy aadama Diouf yëglikaay ba na ginnaaw ba mu daanee wulli ak Alaaji Mbay yëglikaay baa xëy tey ñëw ci moom dinu wax ne aadama juuf ay atam xaw naa bari ci lamb waaye ba tey mu ngay résister daal nekk ci lamb di wane boppam kooko booleel aadama wan ko boppam aadama nag ban ko laajee loolu la ko may ne boo bëggee dégg dëgg daal dund gu baax ne na loolu moom bokk na ci ndax ne na damay lekk bu baax tey itam nag du ma tox te itam li di sàngara day xëy ma gont maanaam du ma ko laal fenn aadama juuf ne na boo bëggee dégg dëgg ne na mbir yooyu daal bokk na ci li tax nga maanaam daal mu nekk ci làmb ji bopp ba tey di wane boppam yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dina ko wax kenn koo xam ne ni moom waroon naa wane boppam ca bis ba aadama juuf doon bëre muy buur sin bu bawol diggante ak mobile buur sin tamit yëg li kaay ba xëy na tey laaj ko ne na li gën a metti daal tey itam tàngoom xol lool préparer sa combat ba pare ngir war koo bëre nag maanaam bareetoo ko mu jaar fa naax saay buur sin jàpp na ne lool lu ko gën a metti du am mukk mukk mukk leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy wala boog beneen yëglikaay di record record moom maanaam mu nga xëy tey dinu wax ci diggante moo doog ama donte ñu ngay wax 13 mars ci sunu lamb Abdou Bakhoum mayore ama Balde moom la mu xëy xam xamle daal ne boobu combat daal ñoom la ñu jàpp daal mooy la vingt cinq décembre ndax nag ne na bés boobu la ñu signé ak Luc Nicolaï war ca bëre keneen koo xam ne nii moom record ñëw na ci moom muy Laurent Ndiago yëg likaay bi nag beneen phénomène daal juddooti na jàmm gën loolu yëg likaay bi moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu waaye am na loo xam ne tey xëyee nañ ko mu di awtis muy Sessuf Koto mi ngeen xam ci wàllum football bi te itam ku ne gis na ko ak équipe nationale yi mu football bàyyi football di tàggat équipe Sénégal yi jaar fu baree baree bari ci wàllum football mu wuyu ji boromam démb kon nag loolu nekk na loo xam ne lu metti la ci réew mi rawatina monde sportif bi kon nag la nu mën a def mooy ñaanal ko yàlla rek yàlla jégal ko te xaree ko aljana waaye daal addinaa ngi noonu kulu nafsin saay xotin mawtin la kon lu fi waaye di nekk rek bu yeboo na rafet te itam nag nga jéem koo teg ci siraatal mustaqim ndax nag mujj gi mujj gi rek fii lay mujje fii la nekkoon jóge na fi jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi tey loolu lañ ñu indil waaye nag muy li nga xam ne ni fa la mujj muy lu tiis loo xam ne dal na ci monde sportif bi dal ci réew mi yépp parce que nag république bi yépp ñoo ko bokkoon muy Joseph muy Joseph Koto kon ku nga xam ne nii ci wàllum football jaar na équipe nationale def fa ay jaloore ak ay club yu mel ni ki Jeanne ak yu mel ni ki noonu ba ni mu bàyyee football terewul mu continuer di servir réewam mi nga xam ne moom moo di Sénégal ak. nekk entraîneur di jàpp ci football bi bu baax a baax ndax yaakaar naa ne dem na benn moment boo xam ne nii les Coto Boys ku ne yaa ngi doon dégg ndax nag ay jaloore te yaakaar naa ci li ma gëstu wala li ma jàpp mooy bokk na ci tey entraîneurs yi nga xam ne ñoo gën a titré ci Sénégal kon boog kooku buñ ko ñàkkee ah dina metti lool mais ñu ko ñu ngi koy jàll ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu yëngutu ci sport rawatina nag ni waa football bi te xam ne àddina moom noonu la tëddee rek da nga fiy nekk tey suba nga jóge fii waaw waaw loolu daal moo mooy loo xam ne nii tey yeewoo nañ ko muy lu méttee méttee méttee bu ñu fa jógee nag dañuy ñëw ak yéen continue tout droit dem ci wàllum làmb ji fi ñu koy njëkkee mooy gis ngeen ko noonu Ama Baldé ak Moodu ku nekk yaa nga sol sa pile wala sa blouson taxaw bu mel ni nag léegi leer na yëglikaay ba nee na ah combat Moodu Ama validé nañ ko fi mu nekk nii see daal requête ba leen ni ko Nicolaï yónnee woon nangul nañ ko ko ba combat ba léegi jàpp nañ ko le 13 le 13 mars 2022 yàlla nañ ko fekkete tal ko waaw waaye nekk na komba boo xam ne daal xam naa ne fi nekk nii ah waaw bii date daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla na bañ a rëcc bii yoon parce que nag bari na ay date yu ñu fi jotoon déclaré ba yaakaar naa le cinq décembre moo ci mujjee woon mais malheureusement ah waaw léegi nag kon nañu jàpp ne le 13 mars la. 2022 incha allah rabbi yàlla nañ ko fekk tal ko muy combat boo xam ne yàgg na bëri na ay lu ci tënku daal waaw li ci tënku bëri na lool mais ñu ngi ñaan yàlla rek borom réussir ko ak jàmm ba nga xam ne nii daal incha allah rabbi ah ah dina ca mën a génn moom li Nicolas loolu mooy li nga xam ne nii moom moo di li ci nekk Bira sax wax na ca nee maanaam mbir mu ñu war a la maanaam mes mën a lijjanti la mu féete bor waaw yàlla na yegg ak jàmm rek loolu lañ siy ñaan beneen mbër wala beneen combat boo xam ne tamit ku ne xam ne ne day am ci dimanche le 24 octobre ca Iba Mar Diop Assane Ndiaye tëggu ko ak Bool production muy général Malick ak Boy ak ki nga xam ne nii moom moo di Fils de Balla mel ni ki nag ñaari mbër yooyu am na koo xam ne tey xëy na di ci ñëw di ci def ab jàngatam muy Ahmed Konaté général Malick ngeen gis noonu Ahmed Konaté nag bu ngeen ko déggee mooy Kona mi nga xam ne mu nga nekk ca kaay baax ga ca Tëngéej boo xoolee moom ci wàllum favori lañ ko laaj jàpp na ne mooy favori wu combat bi devant Fils waaw loolu nag day am ci sport parce que sport bu ñu mënti dem compétition boo mën a gis am na favori am na outsider mais tamit des fois loolu ci kayit yi lay doon parce que di nga nekk favori ba ñëw sur le terrain ah outsider bi gagné la loolu day am te combat bi xam naa ne combat bu Fils de Balla bëgg la Général Malika bëgg na ko lool waaye Fils de Balla bëgg na ko lool kon daal xam naa ne loo ci mën a dégg yàlla nañ ko fekkee te tal ko soreetul beneen combat boo xam ne tamit gis ngeen ko noonu muy Bombardier ak Balla ba tey boobu tamit amoon na ay date ay quelques dates dates yu ñu pousse pousse ba mois de novembre bii ñu ko waroon ko ci jàpp ñu pusaat ko léegi nag nee nañu démb ci euh, alxames ji daal ca CNC ba dem nañu fa ba se combat Balla ak Bombardier pour le premier janvier kon loolu léegi féete na boor yàlla nañ ko fekkete tal ko Balla mu nga INSEPS dellu na fa préparé ci boppam ja tamit depuis boobu ba tey mu nga à l'étranger di préparé waale combat MMA bi nga xam ne war na ko jongante yaakaar naa si mois d'octobre bii ñu ne waaw muy loo xam ne lu leer naññe la leneen loo xam ne nii ñaar lañ ñoo xam ne nii ay frère lañu muy As Gaawaan mi ngeen gis noonu ak ki nga xam ne moo di bul laal deux frères même écrit écrit Lansar ah, c'est normal ay frères war nañoo mën a bokk benn écrit bokk di liggéey di xàccee na du dóorandoo waaw loolu moom c'est pas méchant du lu du lu du waaw lu am solo la kenn koo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na si moom muy Adama Diouf moom mooy tête de file bi ñuy wax Mamindis Adama Diouf di doomu séréer di mbër bu nga xam ne nii yëglikaay bi ñëw na si moom at tey at yi moo am ak ni mu nekkee si làmb maanaam di résister ba tey di bëre di daan li simple bi da ciy wane boppam bu bënd bu bindoo lese yi muy bindoo lese te demul final ba jël ko bariwul lutte avec frappe bi tamit ku ne gis na ni mu ci taxawee loolu nag moom aadama mu ngi expliqué li ko ko yóbbee nee na lenn dong moo ko may loolu ak at yi moo am bokk na ci nee na damay lekk bu baax am na solo lekk bu baax am na lool surtout xam la ngay lekk nee na tamit maanaam tux moom bokku ci mbiram alcool waxaale wuñ ko kon xam kooku fawul te yàlla dimbali na ko yor na ay soxnaam te defe naa yooyu bu ko góor amee tuxoo naanoo ni ko di taxawaal ah yaa ngi may dégg di reposer wu di liggéey di di di di lekk bu baax ñu di la toppatoo te xam nga góor moom boo bëggee dégg dëgg bu bëggee doon góor dëgg fa moom jigéen ju koy toppatoo loolu nag soxna la moo tax ñuy wax ñun ñu la beneen kon aadama ci condition yooyu la nekk moo tax nag saa bu summekoo ci arène bi nga gis que ni kii macha allah loolu moo tax mu ngi am ay résultats yu leer parce que ñi muy daan ñoo ko mag wulee wulli aadamaa ko mag alaaji mbay aadamaa ko mag kon ça veut que hygiène de vie am na solo trop ci sportif waaw nañ ci bàyyi xel waxuma sa sportif waaye doomu aadama si boppam dafa war a am hygiène de vie loolu daa war a dafa lu nekk lu ama am solo buñ fa jógee record la ñuy dem record ñëw na si diggante Modou ak Ama foofu tamit daa mel ni ah bu fekkente ne combat bu mois de mars daal léegi lañ ko fixé daa mel ni Abdou baaxu ma yore euh, licence u Ama Baldé di signé ay contrat am fa xam ay combat am ca CNC moom nee na ñoom mois de décembre lañ signé ak Ligue Nicolas la 25 décembre waaw loolu moom am na waaye nag bon xam naa daal mois de mars daal fi mu nekk nii mooy li am keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom record muy Laurent Ndiago di benn xale yëglikaay bi nag phénomène juddooti na ci jàmm gën waaw ndax ku ne xam na ne buñ ko waxatee maanaam nekkul bu njëkk ndax ko waral mooy Siteu tax buñ ne phénomène feeñati na jàmm gën parce que ba Siteu feeñee lu ñu koy wooyee la phénomène de Lansar ba gis nga Siteu tey niveau bi mu atteindre ci làmb bokk na tey ci mbër yi gën a populaire Sénégal bokk tamit ci mbër yi gën a seer kase Sénégal te bi muy ñëw nii Laurent Ndiago ñëwee woon la ñëw bëri mbooloo ay langaasam nekk terme yoo xam ne nii doo comprendre Laurent tamit ci yoon woowu la am aw fi mu nekk nii te Laurent li ci li li garaaw mooy Laurent benn combat la bëreegu kese mooy bi mu bëree bëri ki démb daan waaye nag yàlla moom mooy cërale euh, euh, xulle ndax yàlla moom moom moom mooy borom do euh, lépp ak fépp. nu ko neex mu def doomu aadama kon rek li may wax rek chaque jour rek bu ñëboo rek nañ yéenente jàmm di ko ñaanalante dafay am solo waaw di wax ne tey nag aljuma la ñu ngi balu ñëpp ak si aljuma ji di bal ñëpp ak di ñaan yàlla lépp li nga xam ne ñaan nañ ko tey si jumaa yi ak jàkka yàlla na ko buur yàlla nangu te wàcce ko ci àddina bi rawatina réew mi noonu muy Sénégal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñëpp di ziar ñëpp waaye di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Assane Fall borom global textile nekk fa nga xam ne moo di Parcelles Assainies unité 12 ca côté Sénélec ba zone bii ma sol tey sama zone mu taat bii moo fi jaar kenn du Assane Fall maa ngi koy béggee taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke di ko ziar bu baax di ko ñaanal jàmm aussitôt di nuyu ki nga xam ne moom mooy ñaw yére bi muy ki nga xam ne moom mooy mbay Babacar sama turóon doog usine nekk usine Bentali moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax Robina Laasana mais lu nuyu Rimka Couture du ma ko fàtte moom tamit maa ngi koy béggee bu baax ñoom Adama Ndiaye gars yëpp maa ngi leen béggee Matar Diouf Italie di doomu ndondoon maa ngi koy béggee mais di nuyu tamit suma xarit suma maire de sama maire commune maître Pape Sène président comité sénégalais des droits de l'homme di ko wax ne man Babacar day moom en tant que doomu commune ndondol choisir naa la bu yàgg en tant que maire waaw waaw parce que nag maire boo xam ne jeg nga say population di wax ak ñoom di dem ci ñoom lu xew nga ñëw loolu lool loolu lañ soxla ci maire waaw moom nag bokkut ci kilifa yi nga xam ne dañu tëj seeni bureau boo ko bëggee gis diwti audience maître seen doxewul noonu kon maa ngi lay bëgg di la ñaanal jàmm saa su nekk di nuyu waa commune Ndondol yëpp yëpp yëpp yëpp xullee ba lëndeeg jàmm incha allahu rabbi Ah ouais Attention Jackson Double.